jox ko fiche am te dugaluñ ko joxuñu ko fiche mais mais c'est dafa mel dafa laa bett wala euh, naka nga koy comprendre la fait que dernièrement en tout cas mm-hmm. Ousmane Sonko ngi mu àndal ñi ñu gën a ñàkk a wóolu mm-hmm. fa seen mbir demee mm-hmm. moo ne day ñu jox leen dëgg <laughs> ñu ngi doon gis même ci cour de justice bu également CEDEAO doon statuer ci mbirum ni ñu dissoudre parti ak ni ñu ko génnee ni ñu ko rajee ci fichier électoral bi même bu fekkee l'affaire est mise en délibéré euh, pour le lundi le 6 bi ñu jëm gis nañ sax même audience bi ni mu fa demee la waroon sax agent judiciaire de l'État doon sàkku ci ñu dàq ko mooy li ñuy wax centre ville dafa euh, manqué woon courant amoon sabotage euh, mm-hmm. fenn fii ba courant yeggul foofu man am naa en tout cas sax ay témoignages ñu mën a wax ni c'est vrai même veille bi sax amoon nañ difficulté pour am courant gee fi aju malgré loolu yëpp mujj na am séance virtuelle passe d'arme diggante même juge Ouattara ivoirien bi ak ki nga xam ne mooy euh, Juan Branco di kenn ci avocat wu ki nga xam te ne mooy Ousmane Sonko gis nañ sax après kii nga xamante ne mooy maître Ciré Clédor Ly génnewaat beneen texte di préciser naan non comprendre leen que ne lii jarul ngeen di am ñu bëri sax ñu jàpp ne oui il doit se calmer Juan Branco doit se calmer ce qui s'est passé la dernière fois ci séance bi dafa mel ni daal ku xawoon ñàkk teggin le juge Ouattara ba mel ni ku jàppoon ni sax xëy na kooku dafa amoon intérêt à ce que du plaidel ki nga xamante ne mooy client mhm. ba mujj mu naan ko sax tu es impoli kàddu yooyu sax génn na ci oui. Mhm. sooy boole bañ fi toll waaw ah. man du ma ko. Mm, mm. du ma ko du ma ko. warul njar soo ah. ko jàppee noonu man man si am solo. mais du ko jàppe noonu pour man il est dans son rôle. avocat. oui il est dans son rôle euh, son rôle euh, c'est de défendre son client. n'est-ce pas hmm. euh, Mais il peut arriver, dans le cadre de la défense de son client, qu'il use même de la provocation pour un dessin, pour un projet bien pensé. Je ah un exemple. Je donne exemple. Hein. comme ça. Mm. Bekay Mbaye ci làmb ji. Hmm. pour analyser affaire xoon bi. damay dellu ci làmb ji. ah Bekay Mbaye nee na làmb. dóor taxaw di dóorante rek taxaw koo jur hmm. nee na dóor wut bunt la pour jàpp boo jàppee bëre hmm. mën na am xawaan calli calli gi mu nekkee comme ni ñu ko ni ngeen ko waxee noonu <laughs> ah piccër euh, piccër beeg yooyu euh, c'est savamment calculé est-ce que c'était pas pour euh, dans la stratégie de sa défense mm. d'obtenir ñu euh, euh, plus tard un délibéré. Mmh. c'est-à-dire que affaire bi ñu mettre ko en délibéré. Oui. en attendant que la décision euh, bi génn. génn muy gën a enfoncer l'État. ah oui ça fait une stratégie. Ah cest dire que xam nga la veille. Oui. décision euh, Sénat bi dafa waroon a génn. Hmm. comprendre. Hmm. est-ce que moom nekkul woon ni il pouvait il voulait faire damay analyser nii rek ah mën na am na ci technique comprendre hmm. mu perturber affaire yi pour que sax audience bi ñu renvoyer ko ah wala délibéré bi ñu renvoyé ko hmm. dans l'intervalle comme ñoom dugaloon nañu recours euh, dugaloon nañu recours te Sénat waxoon na ni euh, dana àddu hmm. ça le peut leur permet ñu xaaraale Sénat bu fekkee Sénat génn na mu favorable leen day gën a corser seen dossier est-ce comprendre parce que tey te tey te tey jii cour de CEDEAO mënul bañ a intégrer dans sa décision li Sénat wax Sénat wax li ah ak li fekk justice wax loolu ah est-ce que parce que bu dee justice boobu amul jafe-jafe parce que ñoom ñëpp droit nañuy làkk hmm. comprendre bu dee Sénat ah attention parce que c'est la commission électorale nationale autonome kon donc CEDEAO ak doole ju am hmm. mënut a bañ a sóoraale ñaar yi. capran donc mën na nekk sax du talent pour booy bi euh, xam ni bon xam nga ci làmb gi. Hmm. mbë mbër dana ñëw. Hmm. ñu ni bëreet mu def loo xam ne du maninam. Hmm. ñëw rek Babacar di nga ma ko jox ah. yaa ma koy may nii di nga ma ko jox comme saa Siré mën a déglu. un peu échange bi amoon foofu diggante Juan Branco et les juges Ouattara. très bien su ko defee dinañu may. ñu gën a waa waaw waaw allez allez mën na ko teg. Euh, euh, Babacar jox ma ko jox ma ko waaw. Euh, ci Juan Branco. cëfër cëfër géeg yooyu du ma foofu. mais dafay aller beaucoup plus loin am mm. me posant la question kii bu defee lii euh, lan la ci jublu par exemple. est-ce que comprendre lu tax mu def lii. et su ma poussé réflexion yi jusqu'au bout. mën naa ni à ce niveau. Mm. Euh, lu mu def rek moo ko tey. Mm, moom xuwaat. très bien. Ah. lu mu def rek moo ko tey parce que mi ngi plaidel client comprendre li muy def rek c'est réfléchi kon man jàppee du ma wax affaire. du def benn impact dafay réew très bien. sa veut dire impact euh, très bien léegi nag su ma ko euh, pour qua peut-être il était dans la provoque. Hmm. et cetera. Hmm. peut-être que la provocation fait partie aussi de la stratégie. Hmm. xam nga ba ñuy football nawetaan man dama naan football nawetaan. Euh, ah. numéro 10 laa doon joué. Ah, ñoo euh, bokkoon même poste. très bien ca Mboro. Mboro Tivaouane. Ngaye Dakar Liberté 4 Mbolo nawetaan. Euh, bu ñu daan football. gaa ñi ma daan nekk seen problème dañ ñaan boo téyee Siré rek moom xoolal match bi jeex na dama naa may gars yu ma daan marqué ay six na ñuy nekk lu mel lakkal ah. mais bu ma ci bëggee génn je fais la provoque dama lay hmm. ruux di la xëcc xam nga bu arbitre bu kii fii ma dóor la crochet xam nga ñëwaat taxaw et cetera. mais ba énervé la très bien pour énervé la léegi yooyu nag jéebaane la arbitre bi. pour nga mm. def la l' acte de trop. et cetera et cetera et cetera. xuwaan tamit pour man euh, su ma ko deen analyser mm. dama naan peut-être xuwaan dafa jàpp ni Sénat nee na dina addu ci affaire Ousmane Sonko bi. te Sénat xamagul lu muy wax. Mm. mais mën na wax benn affaire bu ñu arrangé. kon léegi procès bi naa ko jéem a tiire ba nga xam ne ñii balaa ñoo joxe seen dogal dogal ba la génn. Hmm. su fekkee dogal ba la génn na. arrangé ma ma ñambaas ko ci sër bi bu fekkee sër ñambaas moom xam nga yàqulu sër et far nag mu demee noonu mu demee noonu est-ce que comprendre nga hmm. donc foofu loolu laa koy euh, foofu laa koy analyser ci hmm. côté Juan beneen bi euh, mooy li nga ma laaj ci affaire Ousmane Sonko nga ni ma Ousmane Sonko. oui ci li jot a xew ni yëpp décision yoo xam daf ko favorable te très ñu wane woon mooy ñàkk a moo xam l'administration moo xam la justice. en tout cas ñenn ci la justice comme ni ko doon waxee. mais dernièrement ñu gis mooy. en tout cas. lu leen di favorable waaw. Euh, loolu moom nii rek. dafa jug nii rek waaw xam nga kaawu Ousmane Sonko. boo hmm. ko doon analyser. Hmm. Euh, d'ailleurs sax boo doon bind livre <laughs> d'ailleurs sax y a li a l'idée d'un titre d'un livre qui qui ah. Ousmane Sonko. du cas désespéré. Hmm. à l'opportunité enviable. c'est-à-dire que bu ma xoolee. dans le fond depuis. 2014 euh, je pense qu'il est rentré en politique. oui Ousmane Sonko 2014 ah 2014 waay. su ma xoolee 2014 ba 2023 pour tout ce qui s'est passé. Hmm. Euh, mën naa ni Ousmane Sonko est passé d'une situation désespérée hmm. à une opportunité enviable la situation désespérée. Mm. ca tàmbali ga dañ ko dàq. waay te pour qui ne la symbolique du salaire. Hmm. parce que le salaire a un caractère alimentaire. Mmh. d'abord bu ñu la dàqee sa liggéey lu ngay njëkk a wax fu may jëlee lu may dundalee suma njaboot. te fekk sax lay dundal njaboot ko ajuwul ci salaire sunu borom mooy dundal. est-ce que comprendre nga. Mm. le salaire n'est qu'un moyen euh, mais la fin mooy suñu mm. ca tàmbali ga ñu dàq ko situation tey jii. Euh,